du xiiraaleen seen kaw iblis iblis de yàlla du may benn doole iblis ci kaw jaam yi illaa lu mooy laakin waaye nag man itam ko topp na la minal xaawina ci way beew mooy alkaafiri na way weddi ña xéeféeri nag yàlla topp rek ñooñu nga mënal dara de loola waral ku seytaane am doole sa kaw rek wala jinne am doole sa kaw say bakkaara bëri waaye boo laabalee sa bopp jublu sa borom subhanahu wa taala seytaane du la mën a dara rek laa wax de seytaane noonu doomu aadama la pexem lott la mucc ci moom rek mooy beru seytaane nga ndaayam mooy dajeeg nit ñi mbooloo mu am rek ñu gis la fa mbooloo mu ne nga jaxasoog ñoom kooku seytaane mën naa am doole sa kaw de waaye boo beroo seytaane du am doole sa kaw bakkan noonu doomu aadama la la koy dindi rek moom ngandaayam mooy dégg nga nelaw boo wàññee sa nelaw rek di foog guddi sa bakkan du mën ci yow dara de bànneexi bakkan noonu doomu aadama la ngandaayam <clears throat> mooy dégg nga lekk rek booy xiif rek du mën ci yow dara xaaw noonu doomu aadama la dégg nga noonu doomu aadama la rek laa de kon doomu aadama su fekkee ma ngay daraw di xiif moytu rek saa su nekk rek yàlla ma na koo dimbale si yetti noonu ma wax de muy bakkan ak dégg seytaane ak bànneexi bakkan way na jahannama naka jahannama la mooy du moo di seen rendez aj may na mboolem seen yéen ñëpp jahannama ngi ni dëkk de may tabaaka ka la topp la man tabaaka ka topp na la maa ka ànd ak képp ku la topp rek jahannama lay ànd ak lay lay dëkk ànd ak iblis de yàlla ne iblis jahannama lay dëkk moom ak ñu ko topp laa ñeel na jahannama sabaatu abwaabin juróom ñaari buntu mooy sama at baaxtam juróom-ñaari degré degré bi gën a suufe rek moo gën a tàng li kulli baabin ñeel na bépp buntu minaa ci janna minum ci jusun ab xaaj maanaam nasibun xaaj maqsum buñ séddale minum ci ñoom de ma juróom-ñaari xaaj la xaaj bu nekk rek am na ñu fay dëkkee yàlla yàlla musal ci mboolem xaaji jahannama yi kon léegi-léegi danañ wax ma namu ci sawara rek ndax gis nga jahannama la yàlla tudd na juróom-ñaari xaaj la léegi-léegi danañu wax jahannama na mu ci kër gi nga xam ne jullit ñu sàggane ñoo fay dëkkee annaaru safara la ñeen la ko tabaqaatun ay dégëre mooy jahannama ak la sa saangir ak saqar ak jahim ak xotama ak li kulli ñeel na képp jusun xaaj maqsumun buñ séddale de jahannamu nag bu lanc na moom mooy kër ak jullit ña kooku lion saatil muminina ñeel na jullit ñi moo yàlla safara am na ci wàllu woo xam ne jahannama la tudd kooku jullit ñi moo yàlla ñoo fay dëkkee rek buñ ko waxee mboolem xeeti safara ci namu jahannamu jullit koy dëkkee fa de moo tax ruwee net la neen ibnu Mas'ud jëlee ci ibnu Mas'ud mu ne sayaat yi dana dikk ala jahannama ci jahannama sawaanun jamono joo xam ne lay sa nekkut fi haa ci moom aadun kenn rek laa wax de am na jamono jahannama kenn du fa nekk liannahu saatal muminina ndax jullit ñëw mooy yàlla laa bud du mën a ñàkk an yaa xaju bañ génn nag mu naani sawara de ndax jullit ñi nga xam ne ña moo yàlla foofu ñu génn safara te ñoom ñooy dëkkee jahannama rek man qaala wax naa laa ilaha amul benn bu ñu war a jaamu illallaahu lu ma yàlla dee gëm yàlla laa bu du mën a ñàkk a neex na ci mu génne leen naari dugg na moom rek laa wax de ku yi bëree ba mu safara it buñ ko lakkee ay bakkaaram ba génn safara moo tax ma waraw daxara dina dugg na fiyaa safara dana ci génn rek laa wax de laza kooku lil yahudi yahudi yaa ko moom saqar lil nasara nasara yaa ko moom rek laa de aljahimu lil majus majus yaa ko mooy jaamu ko te safare xotama kooku lil mushrikina ñeel na bokkaale kat rek laa de alhawiya kooku lil munafiqina ñeel na nafiqi rek laa de nafiq gën a bonay ver moo tax ñoom degré bi gën a suufee ci ci safara fa la ñu dëkkee fi darakil asfali ci degré bi gën a suufi mel naani safara de kooku sabaatu ak baaqin juróom-ñaari degré la moom safara wallaahu yàllaaw tabaraka bani wa taala kawanaaw jaxala def na naara safara saba tabaqaatin juróom-ñaari degré kama anna al insana ni nga xamee doomu aadama la am na sabaatu aadaayin juróom-ñaari cër المكلف لن توكو جف من هذا يشتري جروم نيار لا تاني ما خمنا نم لا يلا توكو جف جروم نيار لا بلا ينو بد غروز لا نبو ولسان اقلا من وليداك لخا والبطن بير والفرج اقارا ورجل اقتنك يجروم نيار تير لا جبورة قلبي مجروم نتري ورم لهذه سبعته يجروم هذه لي asamaatu ah daa juróom ñaari cër la maal xol bi ànd ak xol ba de mooy leen togg jëf mais insaani ci doomu aadama wala maalu jëf yi nag imma benn an takkoon mu nekk li kas bi mahmadatin ngir fàggu ak ak ak sant aw wala muy ak luñ ŋàññi de fayda ak cant. falaka ñeel na la an la nga jëfandikoo ay yaxut bin bépp cër siita soob na la jëfi doomu aadama yi am na ci loo xam ne lu baax la maanaam xewal la boo def loo xam ne lu baax la indil sa yaram loolu moom mën ngaa def lu ne rek yàlla aayul la ci dara waaye wa idaa kaana bu nekkee yëg si bu di fàggu la mazamatan lu bon fa araamun la lay alayka ci yow an tastaamila nga jëfandikoo a yaxut bin bépp cër mina daay ka say cër fii ci moom boo def lu baax cër mën nga leen jëfandikoo waaye booy def lu bon nag lu bon mooy lu yàlla aaye mënoo jëfandikoo benn cër de ngir def ko hatta fi nafsika ba sa bakkan lay sa nekkul làkk dina ñeel an taxu sa si kii paaka wa taqtula bi ci moom sa bakkan lay sa nekkul làkk dina ñeel haasa bii de jël paaka rey sa bopp sax mënoo ko def ndax loolu lu bon la sa jëmm ji sax sañu say def lu yàlla araamal léeg wa daa kaana bu nekkee nag mu baaxaan di lu dagan nag fii jus naa dagan tastamila nga jëfandikoo alama daa cëri fii ci moom bi charte ci charte de li ngay def bu dee dagan na nag mën nga see mën nga de cër bu mën naa def lu dagan waaye nag ci charte laata charte bi la charte mooy zaakaana bu nekkee nafsu ko sa bakkan taqdiru di attan taqdiru da nga attan an tastamila nga jëfandikoo ko fii mu bàyyi ci lu dagan nafsika ci sa bopp wa zawjatika ak sa soxna wa moom lu ak say jaam rek laa de bu dee yooyu daal am mën nga cee maanaam lu dagan loolu daal mooy li nga xam ne daal islam may na la nga jëfandikoo ko bu dee lu dagan nag loo xam ne mënu téye sa bakkan dana dugal ci lu xaraam su boobaa nga bàyyi ko mooy li gën rek laa wax de balaa nga yegg ci lu xaraam <coughs> kon doomu aadama mayuñ ko mu def lu bon ci benn cër ci cëram yi juróom ñaari cër nag la am moo tax jahannama nekk juróom-ñaari kër tabaqaatu jahannama degré jahannama yi zakara tudd na laa yàlla tabaraka bani wa taala kawena an naa ne moom juróom-ñaar lañ waqul naa wax nañ lakum ñeel leen fi surati baqara saaru baqara ne inna insaana naka doomu aadama fii nekk na si haadi anaasiru yi la cër alarbaa ñeent doomu aadama am na ñeenti ponk anaasiru mooy ponk de الانسان بما دام في نيك سال حسد عنان وفي نيك سال فقير موي لي نيغا بوك كوي دي وفي نيك سال غضب مر وفي نيك سال دوما دام شوات بانيخ نينتي نيك سال دوما دام عنان خير مرك بانيخ دي الحسد وكيان تزوج تكنا الاقدا صغر والهر فقير تزوج تكنا البغل كو عنان damay soxor ndax ñama ñaanee lu bon rek la leen di bëggal motax mom jabaram moy soxor xiir ku ko def rek day nay ndax lu ne bëgg na ko am motax du joxe dara motax mu ne wala zuqir tazawaj takna al bughla nay wala xada bu mer nak tazawaj takna al kibra ray ku mën mer foko fekk kenn du ko wax deug ndax loko wax mu mer de nga motax mer rëy lay indi rek laa kenn dootu la waxati sax sa bët bi suuban ci wa shahwatu bànneex bakkan nag moom baxiun ab cagala rek laata sa waju sayuta kenn takkuun day nekk maa kulli waaye da ànd ak kenn ku nekk de kon kañaan ak soxor xiir ak nay mer ak muy juróom benn nga boole ci bànneex bakkan muy juróom ñaar yii ñooy dugal ku dugg safara ñoo dugal safara wax naa nag boo bëggee mucc ci yëpp fexeel di beru kuy beru te seytaane fexeel di xiif waxuma góob ba nag day waaye daal na nga sag lekk kuy xiif te bakkan fexeel nga xemale sa nelaw su boobaa nga të baneexi bakkan de fexeel it nga xemale say kaddu bañ a bëri wax ñeent kii daal ku ci lekk rek mucc mooy beru wàññi nelaw ak lekk gi ak wax ji ñi xalku ñëpp yée leen xalak soo muccee ci yooyu mën ngaa mucc ci kañaan ak jabaram jamuy soxor mën ngaa mucc ci xiir ak jabaram jamu di nay mën ngaa mucc ci mer ak jabaram ja mu dig réy de su boobaa nga mujj ci bànneexi bakkan moom caga bi nga xam ne koy lay ànd ak haadihi sabaatun juróom-ñaar la firin si doomu aadama fa de li moo tax dikk na tabaqaatu nii raan yi safara ya savante juróom-ñaar kazaalika comme noonu juróom-ñaari cër ñu xalak doomu aadama yëpp muy ayaan soxor xiir ak nay mer ak bànneexi bakkan de moo tax safara juróom-ñaari la juróom-ñaari kër la ku mucc ci juróom-ñaari jikko yi rek mucc ci juróom-ñaari safara de fële alaani moo tax jaat dikk na tabaxaat niiraan yi safara sabant juróom-ñaar kazaalik comme noonu sëriñ bi ne la wajattu yonente koon ma am sihatan la wajattu su ma ma firi lakum ñee leen alquran alquran de mu ne su ma wéroon rek firi leen alquran xaw bu ñu firi lu alquran nu muy mel gannaaw li mu wax lépp dafa firi ba ci ba mu ne ay su ma yoroon su ma yoroon dinaa leen firi alquran de <clears throat> ñu ngi nettali wax jooju ci jamono joo xam ne yëpp dégg nga xaw nañoo tawati alhamdulilah rabbil alamin bañ xamee dara ci xaalis sëriñ bi de innal muttaqina naka way ragal yàlla fi jannatin نيتاي تول بساتين اي تول وي اغي سبل لي تجي دنا داو فيا تي الجنايا ني رغال يالا نك يوم القيامه فني دكي موي تول الجنايا ak i sew ndeyam yàlla ne udxuluha dugg leen ko bi salaamin ci jàmm ay saalimiina mi ngeen way mucc min ci lépp ñu ragal aamiina mi ngeen ñu way wóoru min kulli fasan ci bépp tiitaange de ñooñu aljana yàlla daa lay wax ne dugg leen aljana lépp loo xam ne lu ñuy tiit la lu ñuy lu ñuy lu tiitalaate ngeen ci wóolu am ngeen sécurité gu doy mucc ngeen ci lépp lu ñuy ragal de moo tax alquran janaa amul benn métit amul lenn lu ñu ragal wala sax naa dim nañ wala sax naa nocc nañu maa fi sudurim la nekk seen dënn min xillin ci mbañeel wala min xillin ci nooneel de mooy xeq di nooneel ixwaanan mbir mu ñuy mbokk ala sururin ci kaw yi lal mutaqaabilin ñi way jàkkaarloo de waa aljanaan buñ duggee aljanaan nooneel gi doxoon seen digganteeg waa ci al àddina yàlla daf koy dindi ndax léegi-léegi xat-xati àdduna yi dina andi ñëggi xol ci diggante doomu aadama yi rek laa ndax tuuma juree jëñ tuumaaloon na eh, ndey Aysatu na yonentu du dëgg daal waaye daal lu mën a xew fase ko rek ndax man nga am jabar joo xam ne kenn du ko tuumaal ci la ko ndey Aysatu mere de mooyee mere nag dégg nga naka noonu talaatu ak Zubairu jotoon nañ ak imaam Ali de ñoo ko tooñ Zubairu yonent nee na ko da nga xeex ak Ali te yaa ko tooñ <coughs> xeex naa moom ba ci xare boobu sax ci la génne àddina mook talaatu yëpp Fatimatu doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naag Abu Bakr Siddiq ba juróom benn weer yi nga xam ne la fekkee ci xilaafa Aboubacar jaayantuut ak moom sax far ndax lan ndax dafa ñëw ne ko na ko jox alli baayam ji mu donn ko mu ne ko boo dee ku la ku lay donn mu ne ko samay doomi de mu ne ko lu tax nga ne man du ma doon sama baay Aboubacar ne ko wallaay doomi tu seen teraanga moo ma gënal samay teraangay doom moo ma gënal samay teraangay bopp de waaye sa baay daf ne ñun yonent yi kenn duñu donn loolu waral mënuma laa jox alalam fatimatu mere na abubakar ci loolu waaye yooyu yëpp yowmal xiyaamati buñ duggee aljana yàlla dafay dindi li nekkoon seen xol ci ay ñëgg-ñëgg def leen i mbokk ñu jàkkaarloo seen lal yi ci aljana de kenn du won sa morom gannaaw loolu waral dama naan wax naan coowal mag coowal ay waliyu coowal nit ñu baax na ci xale yi génn coowal mag daw du bëgg mucc def ciy génn de mag nag buñ ko waxee mooy mag ci yàlla ndax ñii ñëpp jotee nañ te koo ci noonu rek noonu wëlli yàlla te ku noonu wëlli yàlla dugg safara de ay mag man nañu am jafe-jafe waaye ndaw li bu ci bañ kenn ñoom it seen jafe-jafe yooyu ñu am seen diggante yàqulu leen dara seen maqaama ci yàlla de yàqulu leen dara seen garaat ci yàlla yowmal xiyaamati li yàlla def rek mooy ñëgg-ñëgg xol yooyu mu génne ko ba mu set boole leen ñoom ñëpp dugg aljana ñu jàkkaarloo lama araada ba mu bëggee allah yàlla xuludu ahli jannati béeral ñooñu aljana fil jannati ci aljana nazaa dina maa fi qulubihim la nekk seen xol min eqdin ci nooneel min xillin ci nooneel de adama adama sakk na dëkk na aljana te aljana bi tabiati ci dégg nga mbind réem alas cosaan maa nazaa dinduut min qalbi ci xolam alxilla nooneel de loolu waral faqada mu génn min a ci aljana aljana kuy jàpp dara du fa dugg aadama ba nga xamee ne yàlla bind na ko def na ci xolam mu mën a jàpp dara dugal ko aljana dafa génn ndax nooneel gi nekk ci xolam de fi haadil manati yoon bii moom isa daxal naa buñ duggee aljana te aljana yàlla lañ fa dugg yéen taw day nocc allah yàlla kulli qalbin ci bépp xol maa fii la ci nekk min xillin ci nooneel hatta la yakuna ba du nekk xillun benn nooneel de buñ duggee aljana nag xol yépp nooneel ga sa nekkoon yàlla daf koy dindi falihaza li moo tax ñoom kii ñoom dana jàpp na ci ñoom alxuludu béel fi janati ci aljana de ba nga xamee ne ñooñu aljana balaa ñuy dugg aljana génne nañ nooneel gi nekkoon seen xol lépp loola waral ñu mën a aljana qaala wan ali ne arju maa ngi yaakaar an takuna mu nekk ayatu bi laaye nasala wàcc na fii ñun ana man wa Ousmane ak Ousmane wa Zubayr ak Zubayr wa Aïcha imam ali ne laaye ji si ñun la wàcc de mooy man ak Ousmane ak Zubairu ak de Zubairu yu xaatibu ma ngay wax ak moom rasul yi nuntu naan ko tuqaatiloo da nga xeex ak moom rek laa wax de wante te fekk yow zaalimu aji tooñ nga ko Zubairu bis yu nuntu def na ko bis dana ñëw nga xeex imam Ali te xam nga ne yaa ko tooñ xeex boobu mooy yowmul jamal bis bi nga xamee ne ñaari sàppe jullit a ngi daje de sàpp gënee talxa tong fa yonentu dig na ko aljana de Aïcha tong fa yonentu dig na ko aljana Zubayr fa yonentu dig na ko aljana beneen sàppe ga nag xalifa bi yàlla ci kaw suuf mu Ali moo ko jiite waaw di buntab xam-xam rek laa wax de ëpp xam-xam ci saxaaba yi ñoom ñëpp jiite aljana lañ te ñoo wutee kat ba xeex war a jug waaye fitna rek la ak réeroo wutee yàlla réeroo koy waral de ñàkk déggoo ñàkk xamante waaye du ak soxor wala ak moo tax ñoom seen wutee googu yàqul leen dara wax na ko moom yu xaatil dana xeex ali woo moom yasdimu moo koy tooñ de léegi nag kare Zubayru nag yonentu def ne sawara la jëm te kooku kat nee na imaam Ali la doon dimbale xola Zubayru yonentu ne ko da nga Ali te yaa ko tooñ kay dimbale imaam Ali rey Zubayru dugg safara loolu mu lay jàngal mooy xeexam eh, coowal mag loolu bëgg mucc def cee génn coowal wala li ñu sa yoon nekkut bul ci songu kenn bul ci noonoo kenn doon wëlli yàlla du tee mukk nga def yëfu mën ngaa doon wëlli yàlla waaye nga am koo mere rek laa wax de yàkki na mere yëpp sax aljana ngeen di jëm seen lali yi ngeen di xoole ku nekk di bégg sa morom waaye fii ci àdduna nag yéen a meroon yéen a amoon jafe-jafe yéen a amoon problème ka dugg nag ko yaa am problème nag cool wëlli yàlla moom cool politique see yem rombal way rek politique yi ñoo mën a dóorante fàddante xasante defante lu ne kay joxante loxo ku nekk akulaat sa morom ree kaf bokk reer yéen nag fekk dee ngeen ci bu yàgg moo tax cool wala yiw ak cool politique yi yéen de moo nga génn gouvernement adduna bii day misaal gouvernement yàlla bi gouvernement adduna bii danga gis ponkali ci kaw fàddante dóorante waaye ñoom dara du leen dal ñu ci suuf rek doon ci dugg ñoo ñoo yàqu rek laa wax de dégg nga problème bi yëpp seen kaw lay dal gouvernement yàlla ba ponkal yi wëlli yàlla yi léeg-léegi kat ñu wutee xaw a laalante lu ne xew ndax loolu la yàlla a mus ñoom fii ci àddina boo àllaaxira ñu jàkkaarloo seen lale ma ca duggoon nag yaa nga safara di di di al ko rek laa wax de moo tax cool wëlliyu leen ci rek de <coughs> laa yamasuun nasabun coono de nasabun moo di taxabun coono wa maa hum ñoom bi muxrajina du ñuy génne minaa ci aljana aljana buñ fa duggee amul coono fii ci àdduna loo def sonn boo lekkee sonn naan sonn taxaw sonn toog sonn tëdd sonn daw sonn loo def sonn rek de waaye aljana boo doon daw waa ñaar téeméeri kilomètre doo sonn ndax amul sonn rek laa de te ku fa xas dugg doo génn xéwal ba faaw idaa daqaloo buñ duggee aljana te aljana laa yaxrujuna duñ génn minaa ci moom abadan ba faaw lu tax li anoo ndax moom la yor xadisut fii suduurim seen dënd xillun waa benn nooneel moo tax buñ duggee aljana duñ fa génn rek laa wax de nabbi na na sawa yaa muhammad ya muhammad e baad yee jaam sama man nii ne man ana man alxafuru maa ji jéggal lil mu'minin yéen way gëm ña rahimu maa ji yaram biim ci ñoom waxal sama jaami ne man maay ki leen jéggal maay ki leen yërëm waaye ñi sa gëm de waa na azaab yi naka sama mbugal dina ko saati yéen la way mooy woo moom an azaab moo di mbugal ala mi ba ñu méttal rek laa wax de sama mbugal mooy mbugal moom mi nga xam ne kum dal méttal sa yaram kullama zakara saa yi tuddee waxdan ak digee ak dafoo toxal na ca bi waa it na càttaku lekkoo la ngir mu nekkal moom laa ji gëm li xaayifan waaw daa ji ragal laa ji daa ji yaakaar bu faw yàlla su digee dafay tëkku rek laa ngir jàngal la yu jullit bi ne da nga war a boole ragal ak mu ne nabbi solool يا محمد صلى الله عليه وسلم عبادي اسمي جام اني من انا من انا غفور ما جي جگلے رحیم ما جي رمے واي وانا عذاب لك سوم بقول وهم انا عذاب من بقول العالم باجي مت يا رب الله عليه ولكن وانا اكرف الله رحمه ما نگا اشد لغره ترمي عذاب چم بقول دون من ما جي جگلے ما يرمي واي وخل ما يم بقولے maay melital def na sama mbugal waaw mooy mbugal mi nga xam ne mbugal mu métti la rek laa wala nga ne yàlla yërmandeem melo jëmmam la waaye mbugalam melo jëfam la de te jëf ji nag du saa su nekk mu def ko moo tax yàlla man nga koo ñaan ci rahmatoom ne ko bi rahmatika ya arhamar rahimin may ma nangam ndax yërmande yàlla saa su nekk mu ngi yàlla ndax melo jëmm la waaye kenn du ko ñaan ci intiqaamam fayam de ndax fayam yàlla melo jëf melo jëf la amaana jamono boobu ngay ñaan melo woo far melo jëf yi dañuy am ak ñàkk waaye melo yi nga xam ne melo jëmm la ñoom dañuy sax rek laa wax du ñàkk ba faw <clears throat> yàlla bind yooyu ci jëf yàlla léegi ñu am léeg ñàkk de waaye yàlla am ba faw kon yàlla melo meloo jëmm la saa su nekk ma ngeeg borom bi de loolu dana la jàngal la mbindee fii jëfi yàlla ni ñu amee tey bis mën naa ñu ñàkk ba mos am waaye yàlla moom dafay sax di am xaytu wasafa ndax melal na naf soo boppam bil maxfirati ci njëggal ورحمت ورحمة يرمانه من أنا من غفور ما جي جقل الرحيم ما جي يرمي واداف ملاف أنا عذاب بغل إليه جمتمهم وأنا زاب عذاب نقسم بغل هو أنا زاب بغل بغل الأليم داجي متل يرم لم يقل يغني انا من المعذب ما جي بغل المؤلم ما جي متل ولا المؤلم ما جي متل وقل لولو <clears throat> كما قالكم نوحي بن الله من قشيكم كره الرحمن يا الله gis nga man ku ragal moo ni turu rafet ngir bañ nga tiit mu ne arrahmaana kulla ma zakaraat saa yi tuddee waadan ak digee zakara day tudd waaye waayidan ak tëkku leeku na ngir mu nekkal muminu aji gëm ja yatiiru du naaw bi jinaayi ni ci ñaari mbagg alxawfu mooy ragal wa rajaa ak yaakaar haala lii fi àqin awaami mooy àqi mboolam nit ñi ñi nga xam ne xegguñ ci yenn may yi bokkuñ ci tànne fii ñoom leneen yàlla sant mooy leen leen ñu ragal leen léeg ñu yaakaar de nga ne ko tànnee fi nag mu ne amaa fi àqil xawaas yi waaye ci àq tànnee fi fa yu baddilu danañ changé xaw moom seen ak ragal bil xabdi ci ngëbu wala jaawam seen ak yaakaar bil basti ci tàllalu xabdoog bastu mooy xaw foog rajaam rek bastu mooy firi xabdu mooy ngëbu alfarqu teqale ba mooy alxawfu ragal li ma yustaqbalu ñeel na liy ñëw war a jaaw yaakaar li ma yustaqbalu ñeel na la ñu jublu ci ragal mooy lan mooy nga tiit ndax suba nar naa xatam sàngam mii di ñëw sa kanam est-ce que du la ci dal wala boog est-ce sama dund ci kanam du mel nii loolu mooy ragal yaakaar naa am lii yaakaar naa am lale yaakaar naa mel nii yaakaar naa mel lale loolu laa amatu naa si di mbébét ña ngay ragal àllaaxira bu ñëwee mbaa du ña nga yaakaar aljana ak neexaayam de ak taaram ya waaye tànneef yàlla yi ñoom xamuñ seen ëllëg dara gerte wuñ ko sax ñoom tey rek lañ xam wal xawaasu tànneef yi laay tamit duñ gerte li mustaqbal ñeel luy ñëw wala maa dem du caa gën a seen yoon nekkul ca hukumum seen àtte hukumu waxtu mooy seen àtte boxtu léegi léegi daal waxtu wi mën naa feeñal loo xam ne danañ tiit na teg. taw a jaaxle léegi waxtu yi feeñal loo xam ne ñu ngay firi waaye loolu seen la duñ jàq mukk ngir luy ñëw wala li paase duñ yaakaar mukk ñëw wala li li waxtu yi feeñal ci ñoom rek ñoom loolu lañ xam léeg-léegi ñu ngëbu léeg-léegi ñu firi de léeg-léegi fekk dara xewut ñoom daal jaaxle nañ daal te xamuñ lu xew loolu yàllaa koy def ci ñoom isa arabu gaaree seen dara yaa mi yoon benn mu yeen leen alal xabdu ci ngëbu in xabadu ren ñu ngëbu li ko mil waxtu ngir àtte waxtu bi de aw in basatu wala ñu firi li ko mil waxtu ngir àtte waxtu bi de laa wax de loolu mooy àtteeb xaasi xaasatu xaasi rek ñoom witaatu raxaw bu ñu yéegee ilaa martabati xawaasil xawaas ci martabay tànneefi tànneefi yu badul dinañ changé arajaaw yaakaar ga wal xawf ak ragal ga bil um si ci wéttali koo yàlla wa haybati ak weg yàlla rek laa wax de hayba mooy wegeel bokkut ak ragal léegi-léegi nga taxaw ak kilifa goo xam ne sëqat sax doo ko ñemee def fekk ragaloo ko fekk it tiitoo dégg waaye dañ koo wegg rek laa wax de léegi-léegi nit toog ak waajuram sëgg mënu sax si gi xool ko te waajur waa ngi màggat ba mënu dara xam nga ne kooku ragalul ko waaye daf koo wegg rek laa wax de léeg-léegi ponkal toogoog sëriñam wala kilifaam bu ko ëpp wax ne moo ëpp doole waaja fuuf waaye ñu mutu sigi xool ko ndax daf koo wéeg rek laa wax de ñoom yàlla yéen ñoom xamu amatuñ ragal amatuñ waaw yaakaar dañuy wéttali ko yàlla rek la wax de waaw léeg-léegi waaw yàlla feeñal ak jamaal ñu mel ni ku miin yàlla léeg-léegi ñu wax wax yu yéeme waaw fireeku kontaan léeg-léegi yàlla feeñal jalaalam ñu wegel waaye ñoom ragal amatuñ ci dara de yëpp ji laa dana feeñee làqu yàlla bi jamaale ci taar feete ànd sama ñu wétalu feete ànd sama ñu wétalu ko de awete ji laa wala mu feeñu bil jalaale ci màggaayam fa taxoo mu tàbbi fii ñu may batun waaw ak wegeel waaw mooy màggal yàlla wek ko bëriñ mën a wax ñoom seen xaal loolu la ñoom amatuñu ragal amatuñ tiit ñële dañuy ragal ak tiit ci luy ñëw di yaakaar luy ñëw tànneefee nag ñoom la ñuy ragal mooy li li waxtu bi feeñal rek la ñuy yaakaar mooy li waxtu bi feeñal fe waxtu bi feeñalee xéwal ñu kontaan bu feeñalee leneen ñu tiit ñeneen ak ñoom yàlla dafay feeñal ak taar ñu am yaakaar seen borom fireeku dégg nga dégg nga ko yàlla yàlla feeñal nag ak jamaal ak jalaal mooy lu mag ñu daal di ko wér rek laa wax de xormaal ko màggal ko ba duñ mën a siggi wala duñ mën a wax de waaye tiitil nag yete jëllaa dana feeñu alxaq yàlla bi jamaali taar fayta an nas wala ñu wettaliku aw yete wala mu feeñu bi jalaali ci fa taqawa mu taabi fii ñoom ay batun wegal wa ida kamulu buñ matee ba mat nag laa yashaa doon duñ gis jamaalan taar wala jalaalan du caageen buñ matee ba mat dootuñ gisati dara bel ni fi nekk kamaalan mat mun la kan guñ jooyal de te mooy allahu akbar yàlla gën a màgg buñ matee yàlla rek la ñu gis mooy mat guñ jooyal bi duñ gisati sax moom jamaan ak de ñoom saa su nekk ñu ngi fuglu borom bi de bu ne wa nabiyum xibaar leen wa nabiyum solo leen an day fi ibrahima ci gën a ibrahima ya woom ñoom malaayikatul malaayika lañ is na xas fukk ak ñaar aw sootin wala fukk aw salaasatan wala ñett Ibrahima ñetti malaaka ko dikkal ñi ne fukk ñi ne fukk ak ñaar bokk na ci ñoom Jibril lu mën a xew Jibrilam fa lay soo nekkuñ bi day fuñ di ay gan day xam nga ne ñoom duñu gan waaye yonentu yàlla lañ yu yàlla yónni de waaye ba leen Ibrahima tuddee gan rek la leen yàlla tuddee gan ngir dëggal Ibrahima malaayikatu ay malaaka rek lañ walakin na ibrahima waaye ibrahima zannahum njort na leen day fan gan wasa maaw mu tuddee leen day fan gan wasa daqa mu dëggal leen day fan gan ilaa aqib daari ba mu jëg jamono ibrahima leen yaakaar gan tuddee leen gan yàlla tuddee leen gan ngir dëggal ibrahima haada li day fi ibrahima mooy jëre ibrahima al mukramoon yuñ teral de teral gan nag xewal gu bëriñ ci gu màggan ci rek laa wax de léegi-léegi nga gis jaamu yàlla gu màgg waaye def ko amaana tënn la yu mel nii ci nga koy dafaatale terewul gan am na bonus yu mag yoo xam ne danga koy def mu mel ni foo dara nga jot wul lii boo xam ne lam jaamu yàlla kenn xamu nu mu toll ci lu ndaw nga ko jotee yàlla may nañu loolu ñun xeetu ci bi rek xaddis yooyu rek lay jàngale lay waxat zakroo tudd nañu xaddis an xaddis musalsalan buñ jokkale mooy taalibe bu nekk jëlee ko sëriñam ba ci yonent bi li diyaafati ci ganale hadisu ganale gi mm, li diyaafati ci ganale ala aswadayni si ñaari ñuul yi almaaw ndox wa ñoom lañ tuddee aswadayni yonent bi dafa ganale woon imaam Ali jox ko ndox ak tàndarma ba pare nettali leen xewal gi nekk ci teral gan hadis boobu nag moom lay jàngale taalibe bu nekk jëlee ko sëriñam ba ci yonent bi ña ko nettali ñëpp ay sëtu yonent lañu sallallahu alayhi wa sallam bi sanad yi ci wér waaye al muttasil bu jokk ila Jaafar Sadiq xadis bi Jaafar Sadiq moo ko nettali bu Mouhamad Baqir doomi Mouhamad Baqir de Jaafar moo nettali jëlee an abi jëlee ci baayam baayam mooy kër Mouhamad Baqir Baqir lu muy tekki mooy ku xotti xam-xam yi njëkk yi mu mujj de an abi mu jëlee ko ci baayam dégg nga mooy Ali Zeynul Abidina kooku an abi jëlee ko ci baayam al Huseynu an abi mu jëlee ko ci baayam Aliin امام علي كرم تدوي لا يلا وجهه كرم ده جعفر صارخ مو نتري جريس باي محمد باقر كوك جريس باي زين العابدين كوك جريس باي حسين دوم علي كوك جريس باي علي علي ابن ابي طالب ده كرم لا وجهه هذه سلسلة ذهب موي جوكلا غورس ndax ñi jokkale hadis bi ñi ko netri ñep ay sa yonentu lay qala imam ali ada fana rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ala aswadayni si ñaari ñuuli almaa ndox wa tamr ak tàndarma imaam ali ne yonentu daf ñoo ganale jox ñi ndox ak tàndarma ba pare nettali ñi xéwal yi nekk ci ganale gan xaal yonentu ne man adaafa ku ganale muuminan julit waaye nan benn déglu leen déglu ko teral gan xéwal gu magam julit waaye nan benn gan mel ni ganale Adama Adama te ku Adama mu ngi mel ni ganale nga mboolem doomi Adama al insaanu doomu Adama saa wujjata boo amee day fan benn gan waa karama mu teral ko yuktabu danañ bind loo ñeel ko sawaaba man akrama yoolu ko teral na Adama Adama de ku am benn gan teral ko di mu lekk de wala nga jox ndoxot tàndar ma ni ko yonentu defee woon sallallahu alayhi wa sallam li nga xam daal boo ko joxee gan nga teral nga ko bu dee benn gan la nag mu mel ni teral nga aadama wa man akrama taku teral aadama aadama faqad akrama teral na jamee ku teral sa baay daal teral na la moo tax ku teral aadama teral na doomi aadama yëpp loolu mooy tiyaa baay teral benn gan wa man adaafa ku gane la nag muumine ñaari julit faqad adaafa ganel na aadama aadama wa boobu moo bu njëkk wa ñoo bokkaate boo gënalee ñaari jullit mu ngi mel ni Adama ak Hawa ñoo la seet si nga gënal leen daal di leen teral de wa zakara yonentu tudd ne anna sarasata ne teral ñetti gan ka Jibril mu ngi mel ni teral Jibril wa Israfil ak Israfil wa Mikaayil ak Mikaayil boo amee ñetti gan teral leen mu ngi mel ni teral nga Jibril ak Israfil ak Mikaayil sangi malaaka yi ñoom ñoo la seet nga teral leen de wala arbaati boo tëralee ñeenti gan ka qiraati tawraat mu ngi mel ni jàng nga tawraat wal injiil ak linjiil lépp wa zabuur ak zabuur wal furqaan ak alquraan de mooy ñeenti téere yi gën boo amee ñeenti gan tëral leen mu ngi mel ni jàng nga tawraat lépp gañ wàcc woon ci yonent yàlla Muusaa ak li linjiil lépp gañ wàcc woon si yonent yàlla Iisaa ak zabuur gañ wàcc woon si yonent yàlla dégg nga laa de daawu daaw furqaan gañ wàcc woon si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal xamsati boo lee juróomi gan nag moom moo ci gën a neexati kaman laa mu ngi mel ni ku julli alxamsa juróomi julli fil jamaati ci mbooloo ya min awali commencé ci commencé euh, euh, njëlbeenu min def ileen boo terelee juróomi gan mu ngi mel ni ba àddina sosoo ba ni muy jeexee bis bu nekk julli nga juróomi julli ca mbooloo ma dañ lay jàppee ku julli te suba takkusaan timis gaye suba ca mbooloo ma ba àddina sosoo ba ne àddina jeexee waxuma sa dund rek de xam nga ne julli kenn benn lañ koy fay julli mbooloo ñi di ko fay ñaata ñaar fukk ak juróom-ñett dégg nga ñaar fukk juróom-ñett loolu de dégg nga léegi nag bu dee yow yow kenn yaa doon julli waaye teral na juróomi gan waxuma la sa dund day mel ni ba àddina sosoo ba ni àddina jeexee julli gu nekk rek ca mbooloo nga ko julli loolu xam nga kenn xamu nu mu toll ci tiyaawale teral juróomi gan rek am loolu boo amee juróomi gan na nga boo mënee rey nag sax reyal nag ndax teraanga googu ko teraanga farewul ko kaw de wa si juróom benn gan kayit xisitiina raqabatan mu ngi mel ni goreel juróom benn fukki jaam mi ngi waldi Ismaayil ci doomu Ismaayil boo teralee juróom benn gan mu ngi mel ni goreel nga juróom benn fukki jaam yoo xam ne si doomu Ismaayil lañ bokk xam nga ne benn jaam rek ku ko goreel yàlla goreel la safara loo xam ci goreel juróom benn fukki jaam de wa sabaatu ku goreel juróom ñaari gan tuxlaqu ñu tëj anu ci moom abwaabu jahannama bunti jahannama sabaa yu juróom ñaar ku goreel juróom ñaari gan ñu tëjal ko bunti jahannama yi juróom-ñaar de du dugg jahannama mukk wasamaaniyatu ku goreel juróom-ñetti gan tuf taxu ñu ubbiloo ñeel ko abwaabul jannati bunti aljana ya rek laa wax de ku goreel ñetti gan ñu tëjal ko juróom-ñetti bunt ñu ubbil ko juróom bunti aljana yëpp ku ku ku teral wati saatu ku teral juróom-ñeenti gan tuujibu dana waral asanaatin ay tiyaaba kasiiratu yu bëri yoo xam ne laa tuaddu duñ ko compte wala tuxsa duñ ko lim de juróom-ñeenti gan ku leen teral am tiyaaba yoo xam ne kenn mënu koo lim ndax bëri gi mu bëri wala asratu fukki gan tuuji dafay waral ajra man salla yooru ko julli na wa saama ak koor na wa hajja ak haj na ilaa yawmil qiyaamati bëkk bis penci ku teral fukki gan ñu bindal ko tiyaabaay mboolem ku yàlla nangul julleem ak yalla nangul haram ak yalla nangul hajam ba bis penci rek la ade keroog bam tere lay gën ba bis penci ku yàlla nanguwut sa julli wala sa hor wala sa aj lam la bindul dina ko bindal waajooc moo tax leg legi xam-xam am solo ndax da fay tax nit ki xol jëf yi nga xam ne dégg nga tiyaaba ga cay nekk nit mënu koo jëf mu def ko mën nga woo pii jëf moo bu la tiyaaba rek laa ade benn gan ku ko teral teral na adama ku teral Adama teral na doomi Adama ya ku teral ñaari gan teral na Adama ak Hawa ku teral ñetti gan teral na Jibril ak Israfil ak Mikail ku teral ñeenti gan mu ngi mel ni jàng na Tawraat ak Injiil ak Zabuur ak Furqaan ku teral juróomi gan mu ngi mel ni julli na julli juróomi ci mbooloo ba yàlla mbindéef yi ba àddina di jeex ku teral juróom benn gan mu ngi mel ni goreel la juróom benn fukki jaam ci doomu Ismaayila yi ku teral juróom ñaari gan ñu tëjal ko juróom ñaari bunti aljana yi de ku teral juróom ñetti gan ñu ubbil ko juróom ñetti bunti aljana yëpp ku teral juróom ñeenti gan am tiyaaba yu kenn mënul lim moo tax limul ko de ku teral fukki gan nag ñu bindal ko tiyaabaay mboolem ku yàlla nangu la ci julleem wala waram wala ajam ba bis kon teral gana màgg la rawatina gan gu mag rek haada lii hadisu musalsal mooy hadisu dégg nga hadis buñ jokkale maanaam buñ tudd sanad ba li diyaafati ngir ganale hadis bii dafay wax ci ganale sëriñ bu nekk jëlee ko ci taalibe ci taalibe bu nekk jëlee ko sëriñam ba ci yonent bi ne ko nettali yëpp di sotti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solo leen gani Ibrahima ya il daqaloo bañ duggee ci moom fa qaaloo ñu ne salaaman ak jàmm ñeel nan ne xaala wax na ibrahima innaa naka ñun wajinoona way tiit lañu min kum ci yéen lamma arada bam gaaral yaalim ci ñoom a taxama ñam falam yaakulu lekkuñ xaafa ragal na minum ci ñoom gan yi dañoo ñëw ibrahima berne leen nangu ñoo lekk ah ibrahima daal di jaaxle ci ñoom de ñu ne ko mu ne man de damaa jaaxle ci yéen xaala ñu ne ko laa tawjal bu ragal laa taxaf bu ragal innaa naka ñun rasul rabbika say malaaka borom la nu bashiruka danañ la bégal bi xulaamin ci xale alimin bu bëri xam-xam zi ilmin borom xam-xam kasirin bu bëri xoo moom mooy saaqu de ñu ne ko bu ragal dañoo ñëw pour bégal la ñu wun pour tiital ñu ngi lay doom joo xam ne ju bëri xam-xam lay doon mooy Isaaqa xaala mu ne abashartumuuni ma ndax ah, da ngeen may bëggalee bil waladi ci doom ala an masanii ànd ak ne laal na ma alkibaru mag maa masi ànd ak laalam moom mag iyaaya man de fa bi ma ci lan fa bi ay shay'in ci ban mbir tubashiruuni ngeen may bëggalee doom rek laa wax de istifhaamu taajubin laa jege mu la malaaka yi ne ko ñu ngi lay bëggalee doom joo xam ne ju am xam-xam la da nga ko jur de mu ne kaawteef naka ngeen may bëggalee doom te man am naa lu ëpp téeméeri màggat mu mel ni man lan lay amee doom loolu lan la mën a nekkee ne xaaloo ñu ne ko bashar naaka bégal lañ la bilàq ci dëgg bi sirqi ci dëgg de falaa takun bul nekk minel qaanitiin di bokk ci way naagu yi de alaa ay sina way naagu yi de ñu ne ko Ibrahima bul naagu mukk ci yërmande yàlla lañ la wax dëgg la da am doom ju bëri xam-xam xaala mu ne wa man yaqanatu ana kan mooy naagu wala wa man yaqanatu du naagu laa yaqanatu du naagu mukk min rahmati rabbi ci yërmaane boromam illa daaluna lu way way réer ña alkaafiruna way weddi ña yërmaane yàlla kay kéeféer rek moo ci naagu xaala mu ne fu maa xatbukum ana lan mooy seen mbir ayyuhal mursaluun ay yéen yonent yi Ibrahima wax ak malaaka yi nag ne ko ñun mooy seen mbir yéen lan ngeen di dox lu ngeen bëgg de xaalo ñu ne ko inna naka ñun ursilnaa yónneef nañu ilaa qawmi mujrim ilaa qawmi jëm ci aw nit mujrimiin dafay weddi de alka kaafiriin dafay weddi qawmi luutin te mooy nitu luut léegi laa kim pour ñu xalag leen malaaka yi ne ko ñun yàlla ñu yónni ci nitu luut yi pour ñu xalag leen illaa ala luutin lu may ñooñ luut inna naka ñun la mun a juum danañu musal leen ajmaina mboolem seen li imaanim ngir gëm gëm de ñooñ luut nag dañ leen dañ leen musal ndax gëm giñ gëm ilam raatu lu may jabaram waa këram dinañ mucc waaye jabaram moom du mucc de xadar naa nattal nañ innaa naka moom la minal xaabireen mu ngi bokk ci way des ne ci mbugal ña ñu mu ci ñi ma de jabaram nag gëmul ko moo tax sawara la jëm dana al ko it bokk ak ñe de fala maa jaa ba mu dikkalee ala luut ñuy luut al mursaluuna yonent de maanaam àll luutin luuta la ci namul ba yonent yi ñëw ne luut xaala wax na loom ñeel innakum naka yéen xawmun aw nit mun ko woon ñu fakk de mooy laa aarifukum xaw ma leen ba malaaka yi ñëw ne luut luut ne man de xaw ma leen yéenay ñan waaw tiit lool ndax ragal rek waa ni samay ñëw bëgg def yëfi góor jigéen ci ganam yi xaalu ñu ko balli fi nekk ji naaka dikkal lañ la bi maa kaanu ci lañ nekkoon alxawmu nit ñi yem turoona di warante fii ci moom de ay yesu ko woon di sikk woo turoona azab nga xam ne sa nit ñi ngi ko doon ñu ngi naan dana ñëwam du ñëw mbugal moom lañ andi de waatee naa ko andil nañ la bilàq ci dëgg way naa naka ñun la saadiquna way dëggal nañu fi xawli naa suñu wax fasri na nga rañaanee daalika sa ñoon bi xitiin ci dog mene lay di ci guddi gi de bu demee ba guddi waaw dem ab diir na nga génne sa ñooñ ngen ngeen génn dëkk bi de wata bee na nga topp at baarum seen gannaaw im ci doxal xalfoom seen gannaaw ngir bañ kenn gertu wala yeltafit bu mu gertu min kum ci yéen ahadun kenn bu kenn si yéen gertu rek laa wax de laa laa yaraa ngir bu mu gis way màgg la dana wàcc biim ci ñoom ku gertu rek dana gis mbugal mu wàcc mbugal mu màgg mi nga xam ne dana wàcc ci ñoom te bu gisee mbugal mu mbugal mu wàcc ci moom kon képp ku gertu rek la wàcc ci ñooñ dëkk ba dana wàcc ci moom moo tax bu kenn gestu de waa wam doo wéy leen xay su tuumaroon fañ leen digal ngeen dem woo moom Saam mooy Saam génn leen foofu ngeen dem Saam waqadee naa wax yu nañ waxyi naa wax yu nañ ilay jëm ci moom zalika amra boobu la mbir ñu daal di wax yu waa Luut luñ ko wax yu woo loolu mooy anna daabira hawlaay naka gannaaw a gaay yi leen maqtu lañ dog lañ mos bii nag mu ñuy way dugg ci suba de bu suba tool bu suba rek bu suba teel jotee rek la ko yàlla wax de يتم درمت استئصالهم فلا قلل في سبع السور بن قيل نبر يالكو وجادك الله آل المدينة وجادك الله آل المدينة عندك با مهم مدينة صدوم فلوت دكون وهم يوم قوم لوت المؤمنين لما أخبروا ba leen xibaaree na fii bayti luut naka nekk na ci kër luut mu dan waaw dégg nga waxambaane yoo xam ne sax guy sikkiñ isaanan yu taaru wam te ñëw al malaayikatu ñooy malaaka yi de ba malaaka yi ñëwee nag waaw nit luut ya mooy dëkk sadum guñ dëkkoon yëg ne luut am na ay gan yoo xam ne ay waxambaane la ñu rafet lool ñu daal di dikk nag yastabshiruuna di bég de tamaan ngir yaakaar fi fi'li fahisha si def lu ñaaw biim ci ñoom ña ngay bég kontaan yaakaar ne tey കാല ഒന്ന് ലൂട്ടിനെ ഇന്ന ആവലായനൊക്കെ ഗാനി day fii samay gan lañ fala taf doone ngeen la bu leen ma gàcceel samay gan bañ ñëwee lut ne leen ngeen la bu leen ma gàcceel ñii samay gan lañ de wa taqullaa ragal leen yàlla wala tuxzuni ngeen la bu leen ma gàcceel bi qasdikum si jublu ngeen jublu iyaawum gan yi li fi'lil faahish ngi def lu ñaaw biim ci ñoom bu leen dem ci gan yi naan da ngeen de di ma gàcceel de bu leen def loolu leen xaaloo wax nañ ko ne awalam na naaka mënax terawuñ la yow luut dañ la xaali mi ne ci gan yi ndax terawuñ la gan boo bañee ñu def sa gan yi lu bon ay naaka tar nañ laa ñu dóoyu fi ci gani de xaala luut ne haawulaay gaañee banaatee ñooy samay doom jigéen de moom yàlla mayut koon doom bu góor doom yu jigéen rek laa moon mu ne sama doom yu jigéen yaa ngi nii in kuntum la nekk ngeen faay leen di way def maa tuudoon la ngeen bëgg de min xadaay shawati ci eh, dégg nga wut seen bànneex maanaam jeexal seen bànneex ci jeexal seen bànneex fatatawu juróom na ngeen leen takk de bu dee bànneex rek ngeen bëgg takk leen samay doom yu jigéen yi te ngeen ba sama gan de ñoom faale wuñ dégg nga waxi yonent yàlla lóot nañoo dem ca malaaka rek pour defam ñoom yëfu góor jigéen xaala wala taala yàlla ma ko amee yàlla wax ak yonent ne la amruka maa ngi gën sa dund yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innoom naka ñoom yaa moo na ña ngay deng la yaa moo na ña ngay deng deng fii sakratim seneen mbaw ga de dégg nga mel ni ñu mandi di déng déng seen ak réer gré wala ngay layam wala ña ngay déng déng fi sacrifice seen réer gré ak sama gën na aljëri mu màgg ma tabaraka banni wa taala kaana bi hayaati rasuli ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ak sama gëjut bi hayaati ci dund mindeef xatul mukk xabla nabi njëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëjut ci dund benn mindeef lu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa إن الله لك يا الله تبارك بني وتعالى كونا أقسم بالله بنفسي جبهم في القرآن تعالى القرآن في هذه المواد يأتي لي برا وأنا فلا فلا وربك لا يؤمنون فوربك لنسألنهم أجمعين لي فوربك لنحشرنهم وشياطين فورب السماء والأرض تالله لتسألن تالله لحد أرسلنا ويب yàlla gën na ci boom واقسم waaye في الباقي gën na fil baaqi ci des nag bi wax sama mu gën bi xayaati nabi ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takrimatan ngir teral law ñëw yonent bi ne da ko la amruka maa ngi gën sa dund yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam innahum naka ñoom luut la yaamoona ña ngay deng deng fii sa këram seen réer gëree seen mandig réer googu ak ndox googu ci la ñu deng deng di def lu bon rek xamutuñ fi ñu war a teg seen tànk wala ma yaqsimuun ولما يقسم لتهم يجي الجليل يلا بما دم تبارك بني وتعالى كان من يقسم دلجي للمؤمنين يلوي جمي أم أم أم للكافر ولا كريفير يلا كان لي جيل ndax jullit ñi lay gëñal wala kéeféer yi lay gëñal leen bal kaafiruna waye féer ñoom way way weddi ña laay sa doxoon duñ dëgg la ak ala kulli xaari ak lu mën a xew wala muminuna way gëm ña laa yaxtaajoo soxlum li xasam yi ñeel gëñam tabaraka banni wa taala ka wala de foom ñoom musadiqoona way dëggal lañ moom ñu ne way gëm lañ kon lu tax yàlla de gëñ te xéeféer moom lu gëñ ñàkk gëñ du gëm jullit nag lu tax yàlla de gëñ pour mu gëm lu mën a xew rek dafay gëm lu tax yàlla di gëñ naka noonu yonent sallallahu alayhi wa sallam léeg mu gëñ aratul arab aada arab bi andoon na ñoom yoqsimoon dañuy gëñ fi kalaamim seen wax de lay aada arab mooy bu ñuy wax daal dañuy gëñ wal quran al quran naa arab arab la yaati day di kalaa saqi kalaami arab ci kenn fala daali moo tax jaa dikk na fii moom alqasam mu ngëñ de dem alquran waxee arab la ni arab di waxee lay waxee loola waral mu ngëñ waaye gëñul pour ku ko dëggal wala bañ ko wedd wa kama anna insana comme ni nga xam ne doomu aadama yoq su mu day gëñ bi hayaati habibi ci dundu soppeem yaqul la wax moom yàlla lahu min yonent ne ko la amruka sa dund mooy sama ngëñ fa allah yàlla tabaraka wa taala kaana aqsama gëñ na bi hayaati rasuli ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kama aqsama kon mu ngëñee bi baladi ci dëkkam wa hazal baladil amin dëkk boobu mooy Makka de wa kama aqsamakum nu mu bi asri ci jamonoom wala asri maa ngi gën ci jamono yonentu ne l'insaana la fi xusrin fa axasathum mu jàpp leen sayaatu xaacu ga sayaatu jibril xaacu jibril ga musriqiina bi mu ñëwee dugg ci fenk ak jant ba de waxtu shuruqi shamsi waxtu fenk ak jant ba ñuy luut ña nga dem ña ngay bëgg def lu ñaaw ba ñuy bëgg def lu ñaaw nag ba suba teel jotee rek jibril xaacu leen daal yëkkati seen dëkk ba ba mu asamaan mu dëpp ko ñoom ñoom ñaal ku ne fa jaal def aaliha la kawe seen dëkk ba mooy xuraawam la kawe seen dëkk ba saafila muy aji suufere daan rafa te mooy mu yëkkati ko jibrilu jibril e samaay ba asamaan waasqataha mu daane ko maqlubatan mbir mi luñ jàllar bi ilaa da jëm ci suuf wa amtar naa ñu taw alayhim seen kaw hijaaratan ay doj min si ji yu jógee ci ban buñ lakk safara ci tiinin ban tubiqa tokk nañ togg nañ ko bi naari safara inna fi zaalika naka naka si loolu ñu tudd almaskuur lañ tudd laayaatin ay tegtal yuy tegtal a wéeteg yàlla dalaalaatin yuy tegtal wax daal ci laay ci wéeteg yàlla li mu tawassime ñeel way rek naa dina la wasilantal al mu'tabirina way xalam ya képp kuy xalam rek lii dañ ci jàngee ne yàlla rek mooy kenn ndax bu kenn du man lii mooy xalak dëkk ba yëpp bañ dara jugut dara yëngatuwul kenn mënu ci dara dafa fekk ne yàlla kenn la ne bu doon yàlla ñaar la bu bëggee def lii ne am ñu ko aay waaye dana jàngal kàttan ak yàlla ndax yëkkati ab dëkk ci benn malaak ba ci asamaan nga dëpp leen loolu xam nga ne bu malaaka ko def kon yàlla mi bind malaaka boobu nu war a mel borom kàttan la de moo tabirin mooy ahlul firaasa ñooñ xel yi yaqul mu wax rasul yonente bi sallallahu alayhi wa kaana nekk na fi ma qablakum leneen njëkkoon muhaddasuuna ñu ñuy wax yu ولا نيني ينكوال أين من أمو ملا مولا نيني ينكوال يتكلم دنا الملك ملاك في قلوبهم سن قل فإن يكون نم نكن فيكم تيين فما يمن الخطاب فما عمر رمي خطاب ده هذا يلا قرم الله عنه شمام am na ci jaami yoo xam ne malaaka yi ñooy wax ak ñoom ci seen xol nga xam ne luñ xalaat rek dafay nekk dëgg ndax du nekk xalaat yi doomi aadama waaye waxi malaaka la yonut ne Omar ci la bokk de radiyallaahu anhu moo tax lu mu daan xaatir rek ñaareel daf daan dëppëg li alquran di wàcc wa qaala wax na moom yonent ne ittaqu ragal leen firaasatal mumin njortub julit fay noo nekk moom yonent dafay xool bi nuuri laay ci leerab yàlla moytu leen njortub julit ndax julit ci leerab yàlla lay xoolee di wax mën ngaa taxaw ci kanamam rek mu mel ni dafa am seetu boo xam ne dégg nga ci lay xoolee li nekk sa xol ni nga mel lépp lay xam te kenn du ko wax dara de jullit noonu la ko yàlla di may moo tax lu mu wax ñaareel jàppal ittaqoo bàyyi ne moytu leen firaasatal ulamaa yi njortu borom xam-xam yi de kon nag moytu leen njortu borom xam-xam yi ndax yàlla may na leen gis-gis bu xóot boo xam ne nii luñ seede ci nit rek loolu rek lay demee wax ji mën naa bari waaye daal la nekk seen xol loolu rek am allahu yàlla تبارك بني وتعالى كمان ينبيو دفعي ليرال قلب عبدي قول جاوام حتى إذا تفرس ببو جرتوا تكون دينك فراسة دون جرتوا سيحات دلوير يالله اللي لئي ملير القول جام جام بيك فوقم نه لم جرتوا رك دقل ايضا مجو خسي مثال جلسة توقنا سيدنا عثمان بن عفان suñu sang Ousmane doomu Affan waxaw loo te wër na ko jamaatun mbooloo mee a toog mbooloo si saxaaba fa xaala mu ne yusiku an ara gis fi ayni ahadikum ci ñaari bëti kenn seen azina njaaloo xaaloo ñu ne ko a waxee ndax waxyu dafa am nag baada rasulillah gannaaw yonent yàlla bi xaala mu laa déedéet walakin waaye nag firaasatul mumin njortu jullit la de wasaxaata wér na maakaan la nekkoon la nekkoon na ko yita farasu di njort ana loolu mu deme benn saxaaba bu mag duma jaar ci tur waaye daal ñëw na ci jaamia li ahkaamil quran ñeel qurtubi ñu nettali jëlee ci Ousmane ibn Affan ne ab saxaaba dafa dugg ci Ousmane fekk balaa muy ñëwal Ousmane dafa jaar sa marché ba gis ab jigéen xool jigéen ja ba xoolee jigéen ji daal di ñëw ci Ousmane Ousmane ne maa ngi gis njaaloo ci bëti kenn ci yéen ndax yëg na ne waa ji xool na jigéen mu ne ko ah wax yi dafay wàcc gannaaw déedéet waaye njottub julit la de moo tax njottub julit lu jara moytu la way naa naka dëkk yooyu la bi ci yoon muqimin daa ji jub de yàlla ne yéen waa Makka seen digganteeg saam fala nitu luut yi nekkoon bu ngeen di dem saam rek romb seen dëkk yi ñaar ak leen ana lu tee du ngeen gëm de inna fi zaalika naka nekk si loolu la aayatan ak xalam la yabatan ak xalam ni moom ñu ne ñeen way gëm ñi de bu ngeen di dem saam seen digganteeg saam dëkk ñoom luut yi ñu ngi fa mooy leen jàngoon wasakantum fi masaakin lazina zalamu anfusahum yéen ñi yàlla halagoon yéen ak ñoom soreewu leen yéen a ngi romb seen dëkkee saa su nekk di gis ni leen yàlla halagee ana lu tee ngeen xalam ci loolu waatu ci loolu ba mën a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa de